fukki tonu ceeb mu jébbal ko commission sociale bu Touba ca kanam yeneen ñetti ton mu jox ko daayira mu xatimatul xidma toftal ci enveloppe juróomi million yu mu barkeeloo ci ndogu yu nu amal ci jumaa ji El Hadj Abdoulaye Dia delloo buum ca boy boy ba sëriñ Bachir Mbacke xaadim awa ba seede jëf bi sëriñ Abibu Mbacke di wax ne jaajëf lañu koy wax ne ku deful dara doo ko dégg. Euh, Sëñ Fallou wax ne nit ki bu baadool ak ak ak ak nit ku yiw yaa la taqale euh, asgor bu la teralee da nga koy sant ba ñëpp di gën sant nga ko nga bàyyi ko yàlla ko biinum fay ko waaye baadool loo ko def ci talaag day yor le xam ko di gën maa ko koy yëyu dara kon ñu ngi naan jaajëf jaajëf bi xam baat bu ko bu bu ko de su ma def ndax baat bu gàtt la waaye ku jëf doo ko dégg kon jëf na ko fu mu ko di jëfee dana àgg ci loxo yi ma àgg ndax li ko suñu waxee rek barab bii moom ku yàlla nat di mu doo fa def dara moom ndax barab bu sell boo xamante Euh, ndimbal yàlla dafa moom moo fa mën a agsi nit waaye du càggee ay pexe kon bu defee agsi ko jaare ko ci sa loxo bi nga indiloon ko ñoom ñi te ñoom ñi dañ wax ne ñoom yéen dara waru ci kenn yéen ñu ko ne war leen dara ñëpp ñoo ñoo leen war taxaw ci suñu lépp ndax fardu kifaaya la waaye nag yéen a ngi taxawul te jii bu kenn taxawutoon barab bi day day naax say wala mu sànk te loolu waruñu kon a bu ngeen bàyyi seen soxla yi bopp ñu am soxla ngeen am soxla ngeen nanga ko bàyyi seen soxla te yàlla tax fi ñu war a féete kon jërëgee jëf yàlla na suñu Tuubaa fay sëñ Bass ñu ngi sant bi wax di la gërëm te dañu ñaan yàlla def lu mag ak la fi nga jëm bakk see ndax nii rek la sëñ Tuubaa bu jikko la dañuy wax na nga jégale te jëlle te jariñe loolu mooy mbirum sëñ bi te yàgg ci ndax foo gisee lu baax màng ko indi ko Tuubaa te sëñ bi lu baax lépp yàlla da ko màng indi ko loolu ku neex ku naqari dana ñëw wërsëgoo si afi wax léegi ñii ci fa la leen jëmee ñii ci ci ci ci ci mooy yàlla am ñoo xam te bu leen tuddee noonu ndaw rabin wala ñu tuddee ay ay football ay nangam ay milliards lañ cee def waaye yàlla muy ci ñaar dërëm ndax xol bee nanguwut ndax comme léwut sellut fa nga ko jee xam ko kon nag nit ki bu la yàlla dimbalee a jëf dara te jëf ko fa xam ne boo ko jëf wër na yàlla nangu na ko te ku yàlla na dimbal dafa def dara moom te waa gii moom rawatina dëkk barab bii ñu nekk na moom kon ñu ngi ko sant baax di ko tudd sant ci tudd Touba Ca Kanam ak ñi ma ko bokkal ñëpp waaye di ko suñ tur suñ Muntaxa ndax moom lu ci waay jëf moom ko jëfal ndax kenn la ci ñun ñi waaye kenn la ci Muxaddamatul Xidma bi euh, Muxaddamatul Xidma ak tuwaa ci kanam kii Muxaddamatul Xidma mooy ndey Tuubaa ci kanam rek euh, ndax ñoom li ñuy jëf euh, lislaam gépp dañ ngi jëfal waaye Tuubaa gépp dañ ko jëfal liñ bëgg ci mooy mooy Tuubaa liñ bëgg ñu am ko te ñoom ñu ngi ci te li li li xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy fondation Tuubaa te mooy alxuraan te mooy kado yi nga xam moo téye dëkk bi ba dëkk bi wutee yëpp ndax li fi jàng ci alxuraan jàngu fenn te feeg ñiy jàng alxuraan fii nag liñ bëgg lépp di ko am kon ñoom ñuy féeti barab bi euh, saytul ñu li nga xam ne mooy li gën a rëy ci yoon murit te murit boo xam ne ku ñu doon ka jox soxla ci ci ci jumaa ji doo nangu doon defu ci fanweeri dërëm euh, doo nangu loolu mooy sëñ bi kon Mbàkke ñu ne sant baax di la gërëm tey ñaan suñu affaire di ko gërëm moo tamit Ablaye ñu ngi koy sant di ko gërëm te ko ñaan na gën a góorgóorlu yàlla ko yàlla fal cet yàlla ñu ci yàlla musal day topp ni ba ci bàmmeel ni faatu ñoo jëti ñaanal kon yàlla yàlla dafa ci dimbale ko waa muqaddimatul xidma ñoom it delloo njukkal El Hadj Abdoulaye Dia Serigne bu Bousso di wax ne jëf ji du gulet. di sant nag bu baax ak gërëm ndax bépp itte boo xam ne mas naa rot fii ci bar jumaa ji wala ci ñi fi nekk bu duggee sa nopp fa saasa dugg nopp aw lay dañ koy defee sax nu kawe su njort mu jëf yu bari yoo xam ni taali nooñu nekk di ko lim bëkk dem lañuy jëbal sëñ bi caméra yi nga moo ci mujj ànd ak jot noonu la sëñ Bass di noonu la Abdoulaye di doxee kon ñu seeral loolu la seq ak ñoom ah nun nag dañ ciy seere waa jëfut ngir nun sëriñ bee tax muy jëf waaye dafa def ni bar bi noo fi nekk kon lu fi waaye jëf ñu xam ko ñooy waa jumaa ji itam loolu nu waaye defal lu gis ko kon fokk ñu seere waaye pay gi moom nekkul ci nun ñaan gi itam danañ ko ñaan ndax ñaan lañu am waaye xam nañ ci biir ñaan gu nangu la ñu nekk ndax li ñuy def ko amul tawfeex ñaan gu nangu mënoo ko def ndax barab bi ñi ko seq bari na waaye du tey nag ku neex nga ñëw sa alal dem ci damay wax ne xaalis wërsëg la waaye loo ci bëgg a def ci lu baax def ko wërsëgu boppam la dafa bari ñoo xam dañoo tiim xaalis waaye moomuñu ko duñ def ci jàkka duñ def ci daara duñ def ci leneen dañuy bàyyi ba faatu seen borom moom ko def ci la leen neex imma alayhi wa imma lahum waaw ñoom nag mel na ni niñ ko bëggee lañ koy defe lu bëgg a def ci lu baax rek amuñu ci gàllankoor kon loola firnde firnde la li ci li sëñ bi wax ne kun ma achida tafal mitlahu waxaalil man chida taqdu shaklahu lekkal la soob te xam ne ci loolu lay rees ku la yéem xartaalo xartool moom bu la baaxam yéemee la nga mel ni moom bu la bonom yéeme la nga yées ko sëñ Tuubaa dafa daan wax ne àll addi ñett la lu xaram lu lënd lu dagan lu lew bëgg bañ danga ko toppee yàlla lu ci neex def lu lënt li bëgg bañ danga ko foyee lu aram li bëgg bañ danga ko mooy yàlla am na ñoo xam ne am na ñu yooyu du jeex waaye seen dërëm du dem ci dem ci yàlla te bu ñu tuddoon am po rek du jeex def ca lu ko waral alal ju lënt ci moo bari ku di ñëw di la waaw kon nag ñi ngi daal sant sant nag mënut a weesu sant ñu ngi ñaan li ma waxoon léegi ñàngu ñàngu nangu la ñu nekk waaye dañu am lu dul ñaan fokk ñu waaw kon ñu ngi sant ñu gërëm ñu ngi ñaan yàlla na suñu borom nangu jëf yi te nangu na ko tax bu ngeen wutoon du ñëw ci barab bi waaye yàlla na suñu borom sàmm leen yokk leen ba li nga xam ne taxaw na ngir bokk liggéeyal maam ju tey moom Cheikh Bachir ànd ko bokk bépp tari bi boo xam ne dañ la xëcc ndax moom ku mu jox ku nekk la mu ñu xëcc mooy li jëm ci liggéeyal sëñ bi waaw ku mu àndal ko nekk lam lay xëcc mooy liggéeyal sëriñ bi ndax moom ca la ne waaw te te dundaa feq lam nekk ca la lay yóbbu waaw kon ñu ngi koy ñaanal doxinam wii yàlla bu am benn fakk yàlla ko yen ni nga ko bëggee ba tegal ko ci kanam maam ju tedd ja waaw ñu ngi ñu lay sant di la gërëm di ñaan tam suñu cant ak suñu ngërëm jot nga jotul ni ko Ablaye waaw ne ko moom itam ñu ngi ko si di gërëm di ko ñaanal waaw ni ko waxee léegi ak mbokk mi nga xam ne moo nekk fii maam Anta nga xam ne lu ci bari mooy coordonné ak ñun di laaj mbir noo nu demee moom itam ñu ngi ko di ko di ko ñaanal moom itam ndax daf maa waxoon eh, daa daawoon ne ma lépp lu ngeen di sant rek ak lépp lu ñaa ñaa jiite leen ci maamanta waaw ba tax ko moom itam ñu ko ci bàyyi xel bu baax waaw ab defarkat la daal waaw moom kon kon kon kon Abdoulaye dafa am tawféex yi ña ay ay defarkat seq ko am na tawféex jooju ndax maam Anta nga fee sëñ bi Chirou nga fii kooku tawféex Abdoulaye la moom waaw <laughs> yàlla defal ko tawféex usunul xayri ba nga xam ne matul lu wax dana ko def kon loolu ñu ngi koy ñaaral suñu borom saxal ko ci te musal ko te nangu jëf yi. lu ko jiitu El Hadj Abdoulaye Dia jotoon dugal loxoom ci jëf yi jëm ci jumaa ji juróom ñaar fukki caméra ak juróom ñett di ay caméra de surveillance ngir jàppale Muxaddamatul Xidma nu sàmm kaaraange gi ci biir jumaa ji ak ci morgo bi.